asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadou Rokhaya Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ bi mi ngi jox ndigal mbooleem koo xamante ne bi aju nga ci daaru salaam buntam di sëriñ Modou Rokhaya te muy sa bunt ci yoon wi la ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadoul Mamoun mi nga xam ne moo di rakkam ak mbooleem ko tàmbalee ci soxna Ami Gaawaan ak mbooleem ay rakkam ak rakkam yëpp di ko yëgal mbooleem seex si aju ci kër gi di ko yëgal mbooleem fu ab taalibe mën a ne moo xam ci biir réew mi wala bitim réew le 9 janvier sëriñ bi nee na bëgg na lañ joxoon sëriñ Touba daaw ñu jox ko lu ko ëpp fuuf bi nag nee na fasut dencal sëriñ la mbégam mbégum sëriñ sa mbég la nee na mooy ñu yët sëriñ Tuubaa loo ne mosuñu ko yëg sëriñ bi nag mi ngi daaru salaam képp koo bi yaa ngi andi sa addiye boo ñëwee da ko fa fekk ñuy waajalaale bisub sëriñ Modou Rokhaya boobu nga xam ne sëriñ Saliou moo ñu ci joxoon ndigal wax ne saa ñu àggatee ci addiye ji ko def muy bisub sëriñ Modou Rokhaya ngeen yendoo liggéeyal sëriñ Tuubaa fanaanee sant sëriñ Modou Rokhaya loolu nag ñu a yaakaar barkeb Cheikh Mouhamadou Roqee liggéeyee ko nu Serigne Touba barkeb soldaarub Serigne Touba di maam Cheikh Anta wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu